واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجن ci appel ñun ñëpp mu ñu barke Seydina Limaamu Laay di diisoog noonu nag li gën a neex te limu am doy na ab sac nit ku ne mën nañ laa càmbar ba mu des nag Serigne Ousseynou Laye nañ ko naka àddina yabe deful benn ñàkk fay taxawaalul fenn ma teg sàmm ab juddoom toog tam fa mu war a toog mu dem mu des fi nag dese macha allah fan gudd lañ ko ñaanal ak wér barkeb Serigne Ousseynou Laye dal ci sa kaw wàcce la gunge la musal leen seen ànd bi rafet na doomi Serigne moo doomi Serigne Ousseynou Laye bu ñu andee imaam war naa mën a nekk sa feetu ñang moo jur Serigne Ousseynou Laye awa sàmm ñang jur jur jur Serigne Mor mu jur Ablaye ngay woy jur waaye doon doon doon doon doon léppam ci moom kon loolu yàlla yàgg maam Seydi li nga def rëy na ab laay mii boo ñëwul woon tey woo ko téléphone mu doy sëkk li mu am cee gan moom nga am cee gan kër gaa ngay warwale waañ wa àddina jëpp nga fa daje waaye nga tëj sa kër ñëw fekk se dundal kër gi maam Seydi loolu na nga seede ne ñun mboolem ku bokk ku taalibe bi bëgg na ci loolu yàlla na yàgg te sax te leen weer te jàmm leen Ablaye jërëjëf sa kaw ci kanam def nga mat def fulla def fayda wax naa la ko bër kërëm bi sa baay génne àddina ku nekk kërëb kërëb bi nga ne may daj sama baay génn ay million teg ñaata a doy ñu ne tàng ne jënd leen lu doy ci dëj bi noonu taa nga ne am leen defar loolu ko amul jom tonxuñu la ci lu baax doo ko def li nga defal sa waajur wi rëy na bu déwénee yàlla nga mën lu ko ëpp yàlla bàyyi la ak sam xel ak sa sago defal la ko defal ko sa waajur wu baax wi ak say jigéen ak say bokk yépp ak grand sëriñ moom nga xam ne tey ji mooy sunu Bassirou Diagne mooy sunu sag nee naa mën nañoo jooy ne bu nu gisoon grand sëriñ nu grand sëriñ waaye jëfi grand kenn du ko jooy ndax la mu doon jëf di def ci bokk gi ak askan yaa nga ca yàlla nga teeri yow am laa am na ci aw askan moo gën ñàkk la téele ci aw askan moo gën ñàkk laa def la kilifa gëm moo gën ñàkk laa def kilifa sa jëmm rek bu toogee yàllaay def la ko soob sa jëmm kese boo waxul benn kàddu doy na ab sax loolu yàlla na sax suñu borom mii téye ab jaam ba mu yegg fa mu jëm yàlla noonu la teel yàlla sàmm la te yiir la te taxaw la te teel la yen bi te bañ kaa oyofal en bu oyof baaxul yàlla na dis gan te suñu borom def ci loxoom ndax suñu borom bu defee digganteel en ak bopp bu ci suñu borom doxalal dugalee loxoom mën naa bañ a mën naa bañ a borom kon yàlla na en bi diis te suñu dugal ci loxoom ba mu yàlla jàppale la Ablaye bëgg nañ bu baax am na loo xam ne mën la ñàkk léegi sax du bés bu baax danoo toog rek dalal grand sëriñ mais xol yu sedd la ñuy feeñal suñu mbégte ak suñu kontaan ci yow am na fulla am na fayda am na jom xam na li ko war yàlla na nga teeri maam Seydi jërëjëf bëgg nañ di Alassane sa kër bàyyi kale na mu mel tey yoof di xal-xali kenn amul foo teg sa tànk nga ub sa kër ñëw fekk sa Ablaye ab sag la Serif Ousseynou Laye Seyna Issa Seyna Limamou nga am fulla am fayda kenn gisu la fen ngeen ànd ànd bu rafet bii yàlla na teeri yàlla na la sit nee naa la loo song te ñeme ko dina daanu ndax sa baay barke ma koy dund dem na wax naa la barke dem ne la koo ñaanoon ci ahlu bayti mu may la koo xam soxla mu fajal ka sa baay may na ku ne fajal na soxla ku ne yal yàlla sàmm la grand nañ jooyu nu yow lu basiru doon dafa njaboot gi yaa ngi ci nu basiru teewoon njaboot gi yaa ngi ci nu basiru doon wéttalee njaboot gi yaa ngi ci le ko kenn yàlla na nga teeri yàlla sàmm la te yiir la te taxaw la as gor kuy bëgg lu baax bëgg la ci sa jëf ak sa melo te bés bu yàlla sàkk nag ma ne ndoxum teen bu tooyee leen ña di seen kawilal ña nekk ca buntub teen ba war a tooy xet te nooy buntub teen bi nun ñii la yàlla booleeg yow yàlla nga teeri yow xanaa dañuy jox grand sëriñ kàddu mu def témoignage ci njaboot gi rek salaamaaleykum Diagne. waaleykum salaam nga ñëw sa kër defe naa kàddu gi du bari kàddu yi jib rek loo ciy dolli rek bismillah sant yàlla rek. sant yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin asalaatu wasalaam ala rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam fekk fi nag sunu sëriñ ndax kii toog sëtu Seydina Limaamu Laay la Isaa jur baayam Useynu mu bokk ak maami kii bàyyi Useynu jënd lépp diggante mag sëñ ablaay jënde ko ak taalibe te nu fekke ko mu doon ku baax comme su ma ko fi fekkee mu toog jataay bi mooy kilifa gi ndax nit ku nekk da nga koy jox limu moom Umar Laay wax na lépp maam Ablaay dañ koy ñaanal ndax ndaw kët li nga koy dimbalee su dëgmalee yoonu mbaax mooy yàlla musal ko ci cat sama baay bu baax bi alaaji Basiru Jaañ dafa tekki cat ni ma papa Jaañ ndax xam nga luy cat ma ne ko déedéet mu ne ma dëgmal lu baax ba ñëpp teg seen bët nga xëy woon ko gannaaw mm-hmm. nee na loolooy cat kon ñoom ñaar nii yàlla na leen yàlla lafal cat sang bi nag li Omar wax ci sa baay lu tuuti la dama toog ndakaaru góor gi mataar jóob jaalo sama maam Matar Diop bi pend jiga la ko jàngal alxuraan mu woo ma ñëw mu ni ma dama laa bëgg yónni ci Serigne Ousseynou Laye ni ko dégg naa alxuraanam ni mu mokkale jaaxal na ma ma bëgg laa yóbbu ca moom nga santal ma ko gërëmal ma ko waxal ma ko lii maa leen ni fekk ñoom ñaar ñëpp kenn fi nekkatu ci kaw suuf Matar Diop Diallo bi sama baay di xëccoo Ndakaaru guddi la të tëju ci néegam di jàng alxuraan ba sama baay ne cëpp ci kanam ñu ne ko kii mooy fallu sëñ Ndakaaru mu yabal ma sa baay bu tedd boobu moo ko moom waxtu tàkkusaan mu jox ma ñaari lit koloñ ni ma bii allahu la bii rasul jox ma liket bu rafet ni ma kii nag yow laa ko jox jaarale ma ci buntu pootam gunge ma ba ca buntu kër ga as ko fàtte moo tax bu nu woon tey ku lekk tere ngay Ousseynou laay dee fii ba yoof ay dëj lekk lay doon bàyyi bu mel noonu na ku ko am doo ko fooyee xam nga noo koy téye ku mu téye woon jàpp ko kum bëggoon bëgg ko kum daan dimbali dimbali ko mu amoon nag fulla ju rëy doo xam ne kenn mësu koo ñaaj ndax fulla ak fayda ak tab la boole buñ ko doon lim duñ fi jóge mu jël nag roos mii di sa jabar yow uuf ko Diouf Baye Mor di leen jàppale amit kóllëre gu dox digganteem ak El Hadj Bassirou Diagne kóllëre gu rëy ma xam ci dara ñuy diisoo suma baay mos ta ñëw ci appel. ndax daf ne Ousseynou Laay Ibrahima Diop Momar Marème Laayeen la te bis bii rek la am su ma fi ñëwee danaa ko xatal xam nga li tax lii yëpp ma ciy wax ndax yéen ay xale ngeen fekkewu te am na loolu loo xam ni soo koy wax xale da ko yokk alluwaam yokk xam-xamam yokk ndëgër laayam ci kaw suuf moo tax ma ci àgg foofu laa bëgg a yem ci sa baay ndax buñ ko toppee duñu fi jóge ndax baax mbaax gi mu yoroon amul kenn koy wéetal mu sikk ko moor laay rek laa wax waaye des na ñeneen équipe la ñu imaam Matar laay ci loxoom la nekkoon ak ñeneen ak ñeneen naa ci yem rek kon yow sa baay xàll na yoon wi teg la ci yàlla na nga ko muurloo yàlla na la yàlla jàppale maam Ablaye nag dénkaat nan la ko ndax sa dooma sa ala la man noo bokk baay kii baayam nga ndijaayam nga kon boo defee lii du rëcc ñun la waaye nag ñu bokk dañuy bokk te yéen bokk maam Ablaye du ma wax ci moom fi mu ne ñaanal ko yàlla daal li mu dëgmal yàlla na ko ci yàlla di defal ndam saa su ne loola nag pour mu am ñaara koy tungoom maaleykum salaam mooy yar ak teggin ndax sa baay kenn mus koo atte morlaay mii kenn mus koo atteeg nit ci kaw suuf lu nit xëccoog moom bana kook yow ba pare doylu baay bu mel noonu waxoon naa la ko matul une semaine sama biir kër sama biir saal maak yow ñu toog sa ndey toog man la da ngay bette bette ci ndakaar Ablaye Thiaw sa baay di sa maam Alaaji Basiru Jaañ Mariam Jóobay sa maam yow lu waay di jàng ci baax rek bu yeboo nga xam ne jàng nga ko am nga ko ci sa biir kër yaay tari àll wujji wala nga bañ koo tari loolu nag yow yaa koy set waaye dara gënul baax dana gënul baax dara gënul baax lu dul baax baax ko gën ñi fi sa baay doon nekkal ñëpp ñun ñëpp tey teew na nu kon wéetoo am na lool loo xam ne kenn du ko sos muy dellu ginnaaw ñu ngi ñaan yàlla yàlla téeñal la waaye daal li nga xam ne moom laa lay fàttali mooy diine li koy incarné li jëkk mooy makaari makaarimal axlaa mooy jikko ju rafet lu la waay woo yàlla nay jikko ju rafet lu la waay di sant yàlla nay jikko ju rafet sant sa yaay bu baax Roos ndax cant gi mooy sa baay bokk naa ci ñu ko mujj a gis fii mu jooy jooy yu metti ni ma maa ngi gërëm Roos loolu nag falaa mën a yem ndax ku gërëm jigéen ju dul boroom këram ngërëm loolu safewul waaye moom moo ma woo ma fekk ko ca kaw néegam te booba feebar bi mën na ko mu ti ma seedeel ni ma njaboot gaa ngi noonu dénk naa waaye Roos mii maa ngi koy sant di ko gërëm Roos nag loolu su ko defee waru garam la def ndax bàyyi ma ko fi dugaloon du ko fi génne musu fee génn li ko bàyyam defarit defalu ko benn doom ndax sa say nopp ba ko sa baay jëlee Basiru dafa jël sa baay ak Roos jox leen këram gu nekk faan ëpp 1000 mètres carrés mu ne ko Roos laa ko jox ak baay Mor booba xam nga lu ko waral kóllëre Ablaye caw ak Basiru Diagne Marème Diop kon yow ku sant laay lu mu def ci lu baax ci benn yow téeméer nga ci war a def di ñaan yàlla ñu teewaat ko déwén di des ñu bàyyi ko ba ci kanam sant bu baax imaam Pape Samba ndax kóllëre gi fedd nga ko waaye fii yow fii sa kër la fii moom sa kër su ma fi nekkulee mate nga matale nga jataay bi su ma tàggoo woon it matale nga jataay bi kon su ma la fi fekkee du ma am lenn lu dul sant la gërëm la ndax nii nga ko defee ca Mame Marie defee ko ci Mor Laye yaa ngi koy feddliwaat tey yàlla na yàlla saxal la sant waa ndakaaru gépp ñi nga xam ne tey ànd nañ papay baayam di woon kóllëre ba Bassirou Diagne di jaraaf Baye Maysa Ibrahima Ndoye chef de penc bu mbot Abdou Fata chef de penc cëriñ maa di Diagne jàmbur ca jakko Mansour Diop di doomu Ousmane Diop Yaxya Baye Demba Diène di doomu Ahmed Diène Ismaïla Ndiaye di doomi aram jiyén xanaa ñooñu ñëpp boo leen limee xam ne ndakaaroo fi teew sant leen yéen it ci seen ndax mënoon naa leen ni kaa leen dem nga ne dañoo am ndog wala dañoo am jàpp waaye yéen ñëpp kenn ku ci ne sawar nga ci gërëmaan njaboot gi dénkaat xale yi ni nañu toppaat roos wéttili ko di ko jàppale di ko wax Awa Diagne Seydou Nourou ci la ne di ko wax ba ndax loolu moom leen seen yaay dénkoon Rose mii tey mooy seen ndey lu ko waaye defal Mame Marie nga ko defal ndax bu bis bi ma am Mame Marie nga ca kaw kon bu kenn war kenn ci yéen war ta manqué yàlla na fi jàmm sax sutura si sax fi dàkk yàlla bu ñu wute dara yàlla nañu yàlla jàppale sant encore limaamu laay sekk ndax limaamu it wax dëgg yàlla danaa ko sant saxawaayam ci biir kër gi ndax sama ndey Mame Marie Sow moo ma woo bis ma ñëw mu ne ma dama lay dégtal te di la wax nanga ma defal nangam ma ne ko loolu lu mu doon mu ne ma dama bëgg nga santal ma Limaamu Laay sekk maa ngi koy sant di ñaan yàlla yàlla yokk fanam yokk wërsëgam barkeel ko maa Ablaay yow xale yi duma leen dénk ndax yaa ngi leen ni wuuf ba léegi yal na yàlla jàppale kon ba ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah kàddu yi du bari ndax ñu ngi ak Chérif Abdoulaye bu Serigne Mor Laye radiyallahu anhu bu Seydi Abdoulaye Thiaw Laye radiyallahu anhu bu Seydina Issa bu Seydina Limamou Laye euh, ñu ngi ci cent quarante deuxième appel dégg nga kàddu seede yi jotaay gi rafet na bés bi macha allah euh, nu bàyyi la rek nga joxe sa kàddu ak looy tëjee sëriñ bi kon baax na bismillah alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ñu ngi am mbégte lool kàddu yi kàddu yi nag kàddu cant la di sant yàlla ci lu mu may ñu teewee bis bi nga xamante ne macha allah moom rek la ñu am di sant yàlla ci moom bi nga xamante ne bu ko neexoon bis bi duñu ko fekkee ñu ngi koy sant ci bu ñu mayee wér ak tal ba nu mun a fekkee lii ba tal di fi daje bay yëkkati ay kàddu cant bay mën di gërëmante comme ni nga ko waxee dañu nekk ci cent 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye alayhi salaatu wassalaam allah mu nekk bis ba nga xamante ne màgg na loolu ci ñun àdduna di ko célébrer at bu jot bu ñu tolloo ci waxtu wi ñu daje ngir màggal woote boobu nga xamante ne ñun moo nu sauvé macha allah comme ni nga ko waxee ren yemboog premier appel bi nga xamante ne. sunu xalifa sunu maam Sidina El Hadj Abdoulaye Thiaw yàlla na yàlla yokk leeram wuute na ko waaye it uh, bi mu ko wuutee moom ak doomam la ñuy wax Serigne moor ñoo ànd wuute ko mu nekk appel bu diis ci ñun waaye lépp rafet na bi ñu gestoo gis sunuy bokk gis sunuy xarit gis sunuy am di jàmm macha allah Sidina Isa ibnu Chérif Ousseynou mu ngi ni toog seriñ bi ñu koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam macha allah di nuyu grand sëriñ Pape Ibrahima Diagne suma nijaay suma pap suma lépp grand sëriñ ñu ngi lay dalal ci sa kër yow duñu la sax dalal ndax mun naa ne yow fii yow yaa war a dalal képp ku fi ñëw macha allah di la ñaanal yàlla na yàlla oyofal yen wi li nga xamante ne ndakaaru dénk na la ko te muy lu wér yàlla na la yàlla may ba benn yaakaar du tas macha allah di wax ci sunu kàddu jur soxna Rose ak njaboot gi yëpp comme ni ko ni ma ko waxee si ubbi bi kàddu bi kàddu cant rek la comme ni ko grand ñu waxee mu ne maam Ablaye mënunoo wax ci moom léegi dëgg la tollooguñu sax fu nuy waxee su ñun tollooguñu fu nuy waxee dañu toll ci di jàng ak di jéem di topp tànk yi nga xamante ne sunu ay jur ñi ngi ci woon macha allah ñu jéem di xool naka lañ ci tegoo jaamu ci yàlla fexe ba lépp di jaar yoon ba moom fa mu ne ak i baayam ak i maamam mën a bëgg su ñun macha allah ñi ngi ndokkeel xalif général Seydina Mouhamadul Makhtar di ko ñaanal yen wi nga xamante ne moom itam yan nañ ko ko xilaaf maamam gii yàlla na yen bi woyof ñun ak axlu bayti njabootu Seydina Limaamu axlu laahi ñi ngi bëgg ñi ngi sant kàddu yi foofu lañ koy yemale grand sëriñ asalaamualeykum wa rahmatullah ñaan moom du ko def ah sax dimbali ma rek dimbali ma rek dimbali ma rek dimbali ma rek dimbali ma rek seen bis la dimbali ma rek dañuy taasaan doxal sëñ bi sëñ bi ñaanal leen sëñ bi dañu soxla may maam amin allahumma amin hurmati laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajibo dayala awa ya ma khasar al insi wal jinni rasulullah ilaykum ajibo ma